مدينة علم مرتجى منة لنا جريء ومنج من سنوب ومن ثلم ما لا وأني بنبي كل فاسد وسرت بي عبدا خديما بلا خم من الله رب العرش أبقي صلاة بتسليمي للمصطفى الموجل اليمي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته mbokk yi jullit yi mbokki taalibe yi mbokk yi nuy déglu te dinu seetaan ci sunu sit bi ñuy wax ak actu ñu ànd ak yéen ci sunu émission yi nuy waajale màggalug gi nga xam ne moo di màggalug Serigne Touba gi 2018 fa fas yéene ci ànd ak yenn nag ci les sabab sëriñ bi <coughs> génn réew mi ak màggal nan lañ ko war a defee ak taxawaay bi nga xam ne tamit jullit yi am nañ ko ci bis bi ak ndigal li nga xam ne sëriñ bi digaloon nañu ko ngir ñu fonkal ko bis bi santale ko ci yàlla xam ngeen ne li waral màggal gi mooy génn gi nga xam ne sëriñ bi daf ko génnoon demoon ci liggéeyu géej gi 1895 la ko tubaab yi woolu ngir génne ko fii nga xam ne moo di Sénégal loolu mooy sababu tukki bi bi muy laate dem nag def na ay xaar yu bari yoo xamante ni daf koo def moom ba xam génn gi ban sabab lay doon ci moom ak bu génnee lan mooy doon li nga xam ne mooy doon taxawaayam ci liggéeyal lislaam ak liggéeyal yonante bi wax na ne ci ni ko sëriñ Abdou Lahad Mbàkke nettalee fii ci Daaru Xuddoos la def li nga xam ne moo di latikaaf ci jàkka ji wax na ne fi la ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam feeñoo <coughs> bi mu ko feeñoo sëñ tubaa waxanteeg moom ne ko man ko damaa bëgg a bokk ci ñi nga xam ne ñoo di saxaaba yi nga xam ne ñoom nga àndaloon xare badar xare Uhud xare yi nga xam ne xare woon nañ ko ngir lislaam taxaw ma bokk ci ñoom ñooñu nga xam ne bu ñuy tuddati boole ma ci saxa saxaaba yi nga xam ne ñoo àndoon ak yow ci taxawaay yonent bi salaa salaam ne ko loolu jeex na ndax loolu tuur deret moo ko maye woon te léegi tuur deret amatul waaye yow nag gis naa ne am nga ñeent fukki at yoo xamante ni manqué ne ñetti weer te ñeent fukki at ku ko am man ngaa doon xut bu samaan ndax man bi may doon yonente ci ñeent fukki at ci laa ko doone yow nag ngir bëgg gi ma bëgg tama gis ne waxtu nekk yaa ngi koy wax ma yéene la nga am pay am ci loo xamante nii nag dana nekk loo xamante nii ci yow mooy doon sab taxawaay ci ànd gi nga xam ne saxaaba yi àndoon nan ko man ànd googu nag mooy yow ñeent fukki at yi nga xam ne manqué le nga ko ñetti weer dama lay tëbal ñetti weere ñu def la xut bu samaan wala ñu def la nit ñoo xamante ni kenn du la féete kaw lu ku dul saxaaba ya Sëñ Tuubaa wax ne ko loolu de li ma gënal ak li ma gën a bëgg de mooy bokk ci sa saxaaba yi nga xam ne damay dem ba fu ñu leen tudde tudd ma fu nu tuddee la tudde tudduma fa sëriñ bi wax ne ko yonante bi wax ko ne ko loolu de loolu rek mooy xalaat bi xanaa li ma gisaat ne moo ci toppaat de te loolu dafa diis te bëgguma nga dugg ci ndax li ci defaat ay nattu lan lay teg yoo xamante ni yu bare bare bare la yoo xamante ni natt ya pour nga jaayanteeg moom bokk na ci doo dox wocce say loxo di ko waññamtal doo defi tamit lii lan la nattu yi lay teg doo laaj lan moo waral nattu yi waaye doo waxi tamit yin lay teg waxuma la nga laaj ko waaye boo ne un loo ci mas a jëf di nga ko perte man nag li ma la mën a dimbalee ci natt yooyu mooy natt buy ñëw rek ma wax la ne la nattu sàngam mi ngi ñëw seetal noo ko moytoo seetal noo ci fexe ba génn ci suñ tubaa ne ko loolu de bu fekkee am na mën naa koo nangu ndax ruugi man xawma ko ko bind yi binduma ko yàlla moo ko bind waaye yàlla mi ko bind moom moo xam kañ la koy jël waaye bu fekkee lu may teg ak lu may yanu rek diisaay beeg yooyu loolu moom awma ci benn kii sama ngor ak sama jom may na ma ne binduma ruugi waaye lu ma teg mën naa ko muñ yonante bi ne ko kon baax na <clears throat> ñu jaayante foofu ak yonante bi xaate bante ak yonante bi sallallahu alayhi wa sallam yonante bi tamit leeralaat ko ne ko am na lu yu bari yoo xamante ni dina tax natt bi du mën a nekk mooy benn di nga génn dëkk bi ñuy wax Touba benn bi ci des am na sa nijaay ju ñuy wax sëñ Mbusoobe ku jege yàlla la koo xamante ni bu ñaanee yàlla yàlla mën naa nangu ñaan nga te ñooñu dañoo laa jege kon da ngay génn dëkk bi sëriñ bi daal di génn ci la 10 août génn dem Mbàkke Bari bi mu demee Mbàkke Bari di dem ci yoon wi ba mu fa nekkee ci la ki nga xam ne moo di sëñ Mbusoo bi génn àdduna bi mu génnee àdduna moo xam ne yi mu jaayante woon ak yonente bi nag yooyu daan nay jeex génn na Touba ni jaayam ji ne wax sëñ Mbusoo bi kii na tubaab bi woo ko nag daal di koy woolu mu jaar foofu nga xam ne moo di jeewal dem wuy ji leen Ndar ba ci nin ko exilé nin ko génnee réew mi bi muy génn nag xam ngeen ne googu ñuy wax asiru mahal labraari ina asiru moom la daal di tàmbali bi mu demee ba ndar sax woo na ko ni wax Ahmadou njaay ma béy ne ko sama génn gi may génn de yow yaay doon seere dinaa dem dinaa dellusiwaat waaye béyitu xasida wii nag ma ko mokkalal bu ko defee mooy doon seere dinaa dem dinaa dellusiwaat moo tax ci xasida ga sax dinga dégg muy wax ne wan naa samay njaboot ginnaaw génn naa sama ñoñ ngir dem samay njénn tas na sama waa kër yi tamit tasaaroon kon nag damay dem xusóori xalaat wala ahlu anni tafaraxat li mat xilla si anxul madina xasiiru loolu di bayit woo xamante ni sëriñ bi bokk na ci bayit yi nga xam ne woy na ko ci asiiru daal di dem loolu nag li muy tekki mooy ñun kon ban taxawaay lan war a am ci màggal gi ak taxawaay bi nga xam ne war nañ koo defal sëriñ bi génn gi sëriñ bi génn nag ñu leeral ci ne sëriñ bi li ko taxoon a jóg mooy bokk ci saxaaba yi moo tax sëñ Tuubaa di nu wax ne nu saxaaba yi ñooy seen baay ci lislaam kon bokk gi mu bokk ci yi martaba bu rëy la ginnaaw yonante yi saxaba yi ñoo ci féetewaat kaw suñ Tuubaa nag fekkewul woon xare yooyu sunu borom yéegal ko ba mu bokk ci saxaba yi xam ngeen ne Seydina Ousmane fekkewul xare Badar waaye bu ñuy lim xare ba Badar bu ñuy lim ña fa demoon ña teewoon Seydina Ousmane dañ ko ciy boole te la ko waraloon mooy yonante bi sallallahu alayhi moo ko wax toogal ci sa jarak mooy Seynab soxnaam su mu yoroon doomi yonante bi dafa wéradi woon yonante bi ne ko toogal sa jarak loola tax demul bu nuy lim dañ koy limaale màggal nag noonu la ko sëriñ bi tàmbalee waxoon naa ko ci émission bu le Euh, sëñ bi mi ngi ko wootee dem gi la ñuy màggal mooy bi mu fi jógee waaye loolu nag daf bi mu ñibbisiwaatee dafa dellu gànnaar dem fa bi mu jógee gànnaar ñëwaat fi nga xam ne moo di Céyeen bi ñu ko téyee Céyeen ci la delluwaat ñu jëlee ko fa yóbbu ko njaareem bi ñu ko yóbbu njaareem mu toog fa nag muy xaar 18 safar bu jotati mu jàpp natt ya ak nam daan ñëwee ci moom mu tàmbali di xool ba xam dañ koy génnewaat dëkk bi wala réew mi nattu yi ko ci suñu borom tegoon itam muy séentuwaat natt yooyu nga xam ne suñu borom tegoon na ko ba sunu borom benn waxtu jot muy 1921 sëriñ bi toog di séentu natt yi nam ko doon séentoo sunu borom xamal ko ne ko natt yi jeex na pay moo des sëriñ bi nag am mbégtem xol mu rëy ci xolam xam ne lii ko yàlla teggal natt yooyu ak teg ko ko moom doy doyul ci sant yàlla sunu borom ci mennam moom kon na woo ñëpp ñoo xamante ni ay jullit lañu rawate nañu aju ci moom di bi ñu sant le ko yàlla loolu moo waral sant kon nag bisu sant yàlla la waaye sant yàlla ci ban anam la ko sëriñ bi bëgg mooy jàng alxuraan ak xasida def salaatu ala nabi ak berne yooyu mooy sant yàlla sant yàlla nag mooy faw sa xol ndab li ñuy duy di ko raxas ndab li ñuy def dara ndab loolu day fekk na set na waaye ndab bu setut boo ci defee dara xam nga ne la nga ca def doo ko mën a jariñoo ndab lu taq ripp nga bëgg cee yekk ñam wu set wu sell guy wu sedd wu sell kenn du ko lekk waaye lay tax ñu lekk ko mooy ndab la kat day fekk ñu raxas ko ba mu set ñu ub ko bu ko defee lan la ci defal caw ñam di nga ko mën a jariñoo loolu la nit ki di ubbi xalam nag ak xolam mu sant le sëñ Tuubaa bu dee sant yàlla sëñ Tuubaa moo ko dàq ñëpp ndax ci jamono bu nekk jamonoy xat-xat nit ki am na jamono yoo xam du jamonoy sant yàlla ci moom la war a doon waaye nit ñi gis ngeen ne suñ tiitee fàtte nañ yàlla danañ woo ku dut bu nu jaaxlee danañ woo kudut yàlla loolu da koy dégg ci seen i tudd dana tudd kudut yàlla bu nu tiitee bu nu jaaxlee dana tudd kudut yàlla loolu li muy wane mooy ñàkk sant yàlla gu tax ci sa xol loolu nag bu fekkee ne niñ koy waxee ci seen i làmmeñ noonu la mel ci seeni i xol sant yàlla gi des na sant yàlla gi day ànd ni nga koy waxee ci sa xol ni nga koy waxee ci sa làmmañ noonu fekk moo nekk ci sa xol moo tax sëñ Tuubaa wax ne man de sant gi dama bëgg ne képp koo xamante ni sama mbég sa mbég la nga sant ma ci yàlla sant léegi yàlla nag dafa mel ni bu fekkoon dañuy seet na Sénégal ak yeneen réew yi dañuy wax ab ligatuwaar la ndax kenn koo xamante ni ba mu mettee moom dong moo jógoon dem ba mu neex mu ne sant leen ma ci yàlla loolu yaakaar naa ne ñëpp ab liggéeyuwaar la ci ñëpp. moo tax woykatu wolof ba sëñ Musaa Ka ne bu dul woon ak dem ngi wolof nasaraanu kon billaahi ñëpp dem niiraani màggal nag ci nin koy defee baat bi waxoon naa ko ne sëñ bi moo ko njëkk a defee moo ko njëkk a woote sëñ Fallou mi ko woote waati tamit ñu xam ne ku déggoon sëñ Touba la waaye liñ ci war a def phénomène bu bees bi am mooy nin koy sante jël sunu alal yépp def ko ci première safar deux safar quatre safar wala nangam te sëñ bi nag xamoon na bis yi xamoon na bis bu nekk bu mas a dikk xam na sa maqaama xam na sa daraja peese na ko waaye xam na ne bisu diisu safar li mu yor ci daraja ak maqaama benn bis yoru ko mu ne kon na ngeen ma ci sant yàlla moom gàtt bi mu ci doon lewetlu ca bis booba la waxoon sëñ mu laay bi sa ne ko nan ko lewet kon képp koo xamante ni mën nga cee sant la rawatina nag ñu woote ko ci dëkk bii di Touba tuubaa am wàccukaay ñu war a bale dëkk bi wara a setal mbedd yi war a yaatal kii war a yokk courant bi war a yokk euh, li nga xam ne moo di nekkinu dëkk bi ngir gan gu fi wàcc ndax Touba lan woote woote ko feneen keneen ku ko woote feneen yow yaa ko fa woote waaye sëriñ bi nekkal sëriñ tuwaa moom Touba la ko wootee kon Touba am nay wàcc waay ak wàccaay ay waajaay yuñ fi am waajaayu fexe ba dëkk bi lu mel ni yooyu yi nga xam ne dafa am ñu fexe ba loolu fomp ko fexe ba dëkk bi set gi nga xam ne daf ko war a am te set gi aju ci waa dëkk bi aju ci taalibe sëriñ bi loolu kon taalibe bu nekk war nga cee participer taalibe bu nekk war ngaa participer ci wàllu lumière yi war a leer bu fekkee ne amoo dooley xëcc ay poto yoo xam ne da nga koy def ngir mu leeral dëkk bi bu boobaa na nga fexe ba sa biir kër ak sa buntu kër nga fexe ba am benn lumière bu ndaw boo xamante ni dana mën a leeral lu mu néew néew tuuti ba fekk ne képp koo xamante ni jëm si na ci dëkk bi dina gis na dëkk bi changé na dëkk bi am na leeraay dëkk bi am na wàllu bu dee ci wàllu sécurité tamit sécurité war nañ ko cee def bu baax a baax lu mel ni safinatul amaan ak sécurité bi ci am sécurité nag paasewul mooy li ci gën a kii guddi ku nekk xam na ne kuy dox ak leer rek bokk na ci li ngay soxla bokk na ci leer waaye bokk na ci fi ngay dëkk tamit nekk dëkk boo xam bu set la set yooyu nag loolu ci digg taalibe yi la aju bokk na ci gan yi ñëw gani sëriñ bi lan ka jël alalam di ko def ca ndakaaru di ko fa joxe wala ci kawlax wala feneen kenn du ko tuddee ne ko da koy yàq waaye la gënoon de mooy indil ko sëriñ bi ndax sëriñ bi day am ay gan ay gan nag ku ko am da nga leen teral da nga leen teeru danga leen kii gani sëriñ bi nag ku nekk da ko war a jàpp ne sa ganu bopp la ganu sëriñ bi ba loo am loo jàpp ne boo ko defalee sëriñ bi nganam ki muy ganalee ngan googu neex yow war nga caa participer bu fekkee ay burwet yu ñu war a jënd la nga ne naa jënd ay burwet ma yóbbu ko ndax dañuy setal Touba te man dëkkuma Touba waaye lii sama participation la ngir dëkk ba set lumière yi fay def pour lumière leeral naa fexe ba jënd ay làmp yoo xam ne dama koy joxe ngir dëkk ba mën a leer wala dara bu dee daayira boo xam mën naa jënd ay salaire wala lu mën a leeral wala yu mën a dem ci koñ yi yooyu ba tey baax na ndax gis ngeen ne jamono yooyu ba ci ñu yore Senelec day mujj yu ci baree bari day dem ba manqué ba ñoom duñ ko am loola ku leen ko indil ngir jëmmi sëñ tubaa sëñ tubaa mi mën a fay dina la fay te dëkk bi rek ci la jëm si kon yooyu yépp ay wàccaay yu màggal la yoo xamante ni dañ koy def te wàccaayu màggal googu nag kenn waru koo génne te nit ñi tamit warunoo noo déborder déborder ba yor seen organisation bopp organisation bi jëm tuubaa waa tuubaa ñoo ko yor sëñ Touba moo ko yor loolu ci lan war a dox programme mu màggal gi tamit gàttandu ko gunge ko loolu ci làmmeñu sëriñ Touba ki fi nekkal sëñ Touba ci lay jóge waaye du ci sunu xel rek Seydina Aboubacar dafa ne inna diine naa mabniyun ala naqli la ala munasabati al aqli sunu diine ji dañ koy toxale yàlla nee na yonante bi nee na jibril nee na waaye kenn du def lu jub sam xel bokk na ci nag mooy lépp lu ci sëriñ bi digle ñu xam ne loola mooy sunu ndigal sëñ bi dafa soxla ay gan yu mu woo ci dëkk bi ne leen maa leen woo ñëw leen ci màggal gi ñu ñëw ñooña nag am na àq ju war ci diggante sëñ bi ak ñoom yow mi nga xam ne ak sa kër nga yorit am na àq ju war boo dëkkut tuubaay yi tamit am na àq ju la war ci ganaleel sëñ Tuubaa ganam yi boo demee dangay dégg Màkka dañ lay wax ne gani yàlla yi bañ nañ ko ba loolu la ñuy wax gani yàlla yi ba dañ lay kar ci mbedd yi lépp luy xiiwal wala lépp loo xamante ni teraanga la ñu jox la ko ngir di ganale ganu yàlla ganu yàlla nag la sëñ Fallou daan wax jaamu yàlla ci jaamu yàlla yi kon xam naa ne fii la ñuy taxaw bu ko defee di leen euh, bàyyi ci sunu programme yi nekk ci sunu kanam danañ fas yéene lépp lu aju ci màggal gi ak tukki bi dinañ ci wax lu bari ak ni nga xam ne màggal bi phénomène bu bees bi am loolu li ci sunu xalaat te nu jàpp ne mooy dëppoo mbégu sëriñ bi danañ ci mën a laabirante ak ñi nga xam ne seen niveau tolluwut foofu waaye ni ñuy commentaire màggal gi ci internet yi ak ci kii di def yoo xamante ni kenn du xam màggal gi ban dimension la am dimension bi ñu ko war a jàppee dimension boobu daf mel ni dafay kii mooy di am te yoo xamante ni di def ci whatsapp yi di def ci internet bi ay na yàpp yu nooy na nangam kii nanu teeru yooyu passé nag màggal loolu lii bisu bisu jaamu yàlla la du bisu fo du bisu folklore ñi koy def nan xam ne bis bi bis la boo xam bisu jaamu yàlla la sëñ Saaliwu nee na ñaar fu nu dend kii di ko fonk kee bañ koo fonk ka koy fonk dina gis lu mu tiimee ka ko dut fonk loolu nag bokkut ak li ñuy def kon ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp Seexuna Njaay moo nekkoon ci wàllu caméraman bi Soxna Awa moo nekkoon ci réalisation bi madinatu ilmin murtajan minnatun lana jari wa mujjin min sunubin wa min sulmi mala ani bi nabi kulla fasidin wa sirtu bi abdan xadiman bila xammi من الله رب العرش أبقي الصلاة بتسليم للمصطفى الموجل اليمين